asalaamaaleykum mbokki Sénégal asalaamaaleykum mbokki Thiès maa ngi nuyu internet yi nga xam ne ñoo safoo seen seen site www.prestigethies.com ak téléspectateurs yi nga xam ne aussi ñoo safoo seen télé bi nga xamante ni mooy Prestige Thiès euh, di ànd ak yéen ci seen émission ci beneen numéro muy émission bi nga xamante ni moom mooy paj mi paj mi nag comme ni ma leen ko tàmm di waxee rek day dem xool fi nga xamante ni fa la wér gi nekk mu ñëw indi leen ko euh, fekk leen seen biir kër yi daal leen ko fay tegal tay nak ñu amat contentement dellu wat aussi fi nga xamanté moy hôpital Amadou Sakhir Ndiéguène ñu gën nga xam ci hôpital régional and ak wa maternité ngir rek euh, wax ci li nga xamanté ni moy euh, moy jigen ñi ak mbass mi tay nak ñu tan ci suñu tem euh, tem bi nak ñu tan moy CPN CPN nak ñi ci gunge moy suñu ay partenaire nga xamanté moy le conseil départemental de Thiès and ko nga xamanté ni moy wa maternité bu bu hôpital Amadou Sakhir Ndiéguène tay nak may dalal kenn si ñom Eh, wax deug yalla muy tata Ndeye Fatou sen ñuko gën xam ci madame Fall madame Fall nak nek ben charge femme d'État war ñu waxtanal tay ci CPN ñuy am contentement madame Fall dila dalal suñu plateau pac mi. wa merci jari merci ci invitation bi ngeen ma invité ni ñew fekk ci ma fi may liggéey ni wa lu rafet la parce que lu ñuy liggéey lu nek ci jigéen ni liggéey ci famille lañuy wax sax parce que laa jigéen jigéen mo yor kër mo yor borom kër yor xalé yi. waaw donc day daf ñuy neex trop ñu wax ci affaire consultation prénatale li tax ngeen ñëw fi tay xaw ko ak si wàllu mbas mi daal. très bien kon madame duñu dañuy dem rek di dem nag wax ni ci nga est-ce que mën nga ñu wax la moy CPN CPN moy consultation prénatale lan mooy CPN. waaw consultation prénatale buñ koy wax mais manam saytu buñu ñuy yu jigéenu wërul manam jigéen bu tolé rek bo wan na lor maanaam mu tok doon gis baax jëjjë gisatu ko waaw. ñu xool gis na dafa ëmb ëmb boobu nag topp buñ koy topp boobu yàlla di ko may jàmm loolu lañ naan consultation prénatale. moom kañ lay commencé consultation prénatale boobu. waaw ah, consultation prénatale maanaam bu jëlee weer rek ba mu ñëw ñu xool ko firnde ne dafa ëmb maanaam ñu test de grossesse gis na dafa ëmb wala tamit ñu def échographie saytu dafa bëri ñu def écho gis ne ëmb la maanaam ëmb bu baax la placé na mi ngi ci yoonam ñu mën ko topp topp xale yi topp yaay ji Mhm. loolu ñaata ñaata ñaata combien ñaata ñaata euh, consultation Le jigen bi wara wara def manam ci depuis bi ko commencer ak kay fagn la yam wa luñu ñu lu mu new new consultation prénatale moom na amul fum wara yam parce que tant que xale bu juddul si jàmm manam ba yam manam maanaam wara yam war mat bo wasin si ja euh, yaay ji wasin si jàmm xale bu jiddu duñ ne jeex na moo tax nit ku mën na am bu lu mu néew ñeent consultation prénatale mën na dem nag ba juróom-ñett sax waaw te foofu lañu jëm juróom-ñetti consultation prénatale waaw te loolu mi nga jëw si si mu wér wala mu ñàkk wér mën nañ jàpp su jëlee benn weer rek maanaam mën na commencé ba koroog muy mu nekk à terme waaw mu yàlla di ko defal jàmm mm. mm-hmm. très bien lan mooy njëriñu consultation prénatale waaw njëriñ bi bari na njëriñ bi bari na parce que consultation boo déggee waxu tur jigéenu jigéenu wérul rek mo yàlla bu defé nga ëmb da ngay da ngay commencer wérati parce que transformation yi sa yaram bi def ila yaaji du ko antane am na ñoo xam tamit jigéen ñoo xamé ne yaram nangul ëmb bu ñu ëmbee tension da leen di feñu wala sucre feñu leen ñu naan jabet jabet gestationnel loolu yëpp wala ñu manké dérèt parce que dom lu ñëw ci yow di jël ci yow do na buñ ko saytul nga to kër ga rek mëno ko xam fo nga dem hôpital ñi nat di def ay analyse di xol luñ ci teel gis ñu mëna ko teel a bala mu lay del jafe-jafe donc jëriñu bari na té bëgg nañ tam def naa jigéen bu ne bëgg na bo jur bo jur doom jo xamné wërna waaw té loolu yëpp consultation prénatale ci am importance ma lu ñuy top bañ xalé bi manke deret parce que xalé bi manke deret mën ko jëlee ci yaay ji xalé bi tam ñuy xool mo bañ fi ci bur wala sax mu loru ci biiru yaay ji loolu yëpp dañ koy fàgg ci biir consultation yi léegi def euh, consultation boobu am ay ay conséquences yi muy jur waaw mooy lu mu lay wax rek nit ki mën na siburu du ko yëg mu jël ay garabam doom ji loolu si biir bi parce que li may wax femme yi chaque fois yow li ngay yëg ne sama bopp day metti sama yaram dafa tàng doom yi ci biir gi mënul wax donc loolu consultation moo mun a teel a gis loolu ñu mën a teel jox ay garab pour aar xale bi fajaale la yow it que gënul ci ëmb bi waaw beneen bi comme lu wax anémie bi mu lay wax. mooy ñàkk deret bi ñàkk deret bi. Mhm. xale bi yaay ji mën na ñàkk deret wàll ko doom ji doom ji jël ko ci. loolu bu ñu ko teelu gis ci ah, consultation bi tam maanaam saytu bi nga ñu lay saytu loolu day day lor sa doom parce que kenn ñaane doom ji manqué deret nga juddu doom manqué boo yaa ngi bàggante hôpital wala fan. Mhm. waaw problème cœur tam xale bi mën na ko am. Mhm. te loolu dañ koy gis yëpp si dañ koy gis ci biir visite yi. écho yi ñu lay demandé mën na ci des la xale bi am na formation wala dara. xale yi judd itam duñu normal lépp day am ci biir euh, grossesse yi. Mhm. léegi nag bu ñuy visite bu ñu ko teelee gis nañu xam prise en teel ko teel ci jug balaa ngay dem ba dem du aussi di jot ñu koy muy ñëw nekk lu bees ci ñun waaw. Euh, loolu defe naa ne leer na nañu kon defe naa ne CPN euh, am na solo ci dundinu jigéen bi nga xamante ne dafa toll ci ëmb ak ak imbi defe naa ne madame Fall leeral na ko bu baax mais madame Fall ñuy bëgg a xam fan la ñuy defee CPN yi. fan lañ koy defee parce que ñu bëri aussi umpale wu ñu xëy na duñu duñu duñu xam c'est par ignorance xamuñu fan lañ ko joxe yaakaar nañu bu ñu jegewul poste de santé wala jegewuñu rek ñoom waruñu ko def wala yaakaar ne ci hôpital yi mag yi rek lañ ko war a defee ba nga xamante ne bu ñu fa jotewul dañuy toog rek naan nañ toog rek comme feebaruñu tax am ñoo xam yàlla da leen may tamit wéeru ëmb waaw li nga wax dëgg la yàlla dafa def comme yi santé dafa am pyramide sanitaire mm-hmm. dafa am bu tuuti am na case de santé am poste de santé am centre de santé am hôpital mm-hmm. waaw consultation prénatale la mun nga ko defee ci bu ñaax ko bu amul ba am mun nga ko def ci case de santé mais normalement poste santé la war a commencer. de santé. premier palier bi bi. Mhm. poste de santé. Mhm. wala bu amul poste santé bu santé santé moo la gën a jege mu nga dem santé santé. Mhm. bu dee hôpital moo la gën a jege mu nga dem hôpital. poste de santé bu amee sage-femme sage moo koy def bu ko amul infirmier d'état mën na ko def waaw. bu weesoo foofu hôpital boo ñëwee sage-femme mun nañ la seet gynécologue mun nañ la seet. léegi sage-femme yi ñoom si si hôpital yi rek la ñu nekk wala centre yi wala. ngi si hôpital yi ñu ngi si centre de ngi si poste de santé. Mm. kon ñoom daal mën nañ jàpp ñoom ñooy yi nga xamante ne ñoom sage-femme war a def consultation prénatale. sage-femme léegi nag bu amee waaw moom ñoo ko war a def. Mm-hmm. ñoom loolu mooy seen liggéey. bu fekkee nag femme dafa am ay jafe-jafe mën nga ñu boole ka sage-femme moo koy bindal mooy li mu bu consulté gis ay jafe-jafe. bu mhm. la ko bindal kayit yoo xam ne moom mënu ko gérer. da mhm. bindal kayit boole ko ak gynécologue. kon amoo droit jóg rek tëf rek ah. na ñu koy def. loolu nga dem ci sage-femme bi. Mm. parce que gynécologue ñoom ñu ngi fii di visite dëgg la mais gis nañ jafe-jafe nu mu bëree si jigéenu wéral yi ñoom bu ñu leen doon gën a yombal mooy ñu xool jigéen ñi am jafe-jafe. Mm. maanaam ki nga xam ne par exemple jafe-jafe bëri na fànn daal di nga gis koo xam ne toog na ay amul doom koo xam lañ naan grosse précieuse boobu ko ne xam nga dem ci gynécologue parce que topp bu saytu day gën a diis bokkale ki nga xam ne daa mën a am doom mhm. mais saa yi xam ne da ngay visite visite normal ba dem sa sage-femme lépp lu war dina la ko defaral mhm. ba mu gis yow jafe-jafe mu doog la bindal këyit nga dem ci gynécologue te boobaa suivi bi ci lay gën a gën a yomb parce que da nga dañuy lëngu dañuy link lay doon voilà entre gynécologue ak sage-femme dañuy mhm. yem bu ñuy demee ba fu ñuy yem dañuy battal si géné ko mais terul dañuy toog mhm. ndax ëllëg ñamaate bu mel noonu xam yoon bi expliqué gën a ndax ne mhm. xam moom xam borom këram xam si la topp bi di gën a neex est-ce boobu des na uh-huh. des na mais boo xoolee parfois nombre de malades yi ngay jot malade waaw ba pare uh-huh. bi ngay jël si consultation uh-huh. mu gën a expliqué mu gën nangu topp traitement am que ki nga xam ne jotul information bi yëpp mais parfois temps moo ko dul maye bu malaati bëree ñeneen dañuy sonn te jigéen wéru toogaay bu muy toog day xaw yi metti wax bi ngay wax ndax ñëpp bokkuñu déggandoo dégg déggandoo di nga am koo xam ne da nga wax mu teel a da mu laaj la mm-hmm. surtout bu ànd ak borom këram wala goroom mm-hmm. tu mu xam mm-hmm. da kon doo ko temps bi parfois moo ko dul maye moo tax am na ñoo xam ne dëggal dina leen seen nga lay dox maximum dina am tuuti lu des léeg gis nañu ci ci ci léegi seen consultation prénatale yi. Mhm. bu njëkk ba bon bi rek lañ nga xam ne moo toll rek woon mais léegi nañ leen ci impliqué euh, la famille maanaam particulièrement peut-être goro bi wax nga ko mhm. léegi wala borom kër gi ci nga boppam. Euh, lan moo wala yaay ji lan moo tax léegi ngeen euh, doon boobu noonu ngeen mu changé ci biir CPN. waaw jaar li wax rek benn xel doyul lu ñu gën a bëgg ci sama bureau boo fu ñëwee ñaari chaise ñoo fi nekk ñaari chaise yi. Mhm. mooy femme bi ak jëkkëram jëkkër bi fu nekkul. yaayam gorom mi ngi fi mhm. wala sëru jëkkër ci dina am koo xam ne mooy toppatoo jigéen wër parce que moo tax mhm. mun nga ko mu fàtte mhm. boo waxee fekk ñoom ñaar ni nga fi kee dina ko fàtte ne ko xon nañ la kat nangam wala bu toppulee parce que ñun hôpital lañ nekk la jox ay conseil mais ki mu àndal mooy jàpp ci conseil moo ñuy jàppale ci kër ga moo ko ne yow ko tere nañ la nangam yow ko war nga def nangam moo koy fàttali am na jigéen Euh, par exemple euh, may tooñ ñenn jigéen ñi. Hmm. mën nga liggéey mais bul sëgg. ñu dem ne seen gore yi dañ naa tere waaw dañ naa tere liggéey. day hmm. day indi ay ay heures ci waaw ay heure wala affaire yooyu mu ngi noonu benn exemple nga noonu dañ la koy wax ne la boo toll maanaam boo jëlee ëmb dañ lay tere yëkkati lu diis dañ lay tere sëgg sëgg bu wala ñu ne voyage yu sori yi des parfois dañ di ay difficulté si biir famille bi parce que nit ki nga waxal bu demee wax léeg-léeg ñu gëm ko léeg-léeg duñ ko gëm. duñ ko gëm wala moom tam mu yokk duñ bu ko defee tiraillement day xaw bëri. Mhm. léegi nag loolu dañuy bañ moo tax bu ñu sañoon lu ñu gënaloon. Mhm. jigéen wéru buy ñëw. Mhm. mu ànd ndax kenn koo xam ne moo koy seede. bu ñëwee tam kooku jàpp la ko mooy jàpp tam parce que ba du benn nit kese. déedéet waaw ba dèjà ñaari nit ko seet. donc foofu mam ñeneen ci jàpp. jàpp ci xale bi waaw. très bien defe naa ne loolu suñu mbokk jigéen ñi nga xam ne ñoo toll ci mm-hmm. ko déggandoo donc mais est-ce que yéen a ngi boobu. nit parce que mm-hmm. gis naa. kon ma lay wax rek bëri na sama patient muy wax. Mm-hmm. parfois nga ñu dem ñëwaat comme ça gis ko xam ne tension dafa yéeg. nga ne ko war a noppalu. da nga war a noppalu mais noppalu dañuy contrôle parce que ñu bu yéegee 15 jours dañu la war gisaat seen ndax lu ñu la digal am na effet si lu ñu la def. parce que traitement du gar jël garab kese. déedéet ba léegi ñu naan traitement jëti comportement bi nga am ci kër ga wàllu lekk bi yëpp ci la bokk. Mm. dañ lay jox ay conseils si lekk bi jox la si conseil ni nga comporté woo. Mm-hmm. gis naa femmes yi nga xam ne tamit dañuy teel a doxantu. maanaam ñetti weer nga xam ne maanaam bi ko war opéré nga toll six maa ngay doxantu nga def ñu wax ñun sant ñu la nga doxantu. te nga mm. doxantu ñëw importance doxantu da nga xam ne pour lan la boo toll si loolu xam nga xale bi na pour wàcc. dañu naan a doxantu kon. maanaam ba tollu juróom-ñetti weer nga xam ne xale buy génne. fekk na kooku ñu ngi préparer accouchement te leer nañ ci suuf lay wasinee mais ki nga xam ne dañ koy opéré kooku boo xam ne demal doxantu ban njëriñ la am tuubu <laughs> yow dañ ci gis femme bu doxantu mu col bi commencé ko dafa xanaa da dox mën a waaw dama commencé sama gorom moom ne naa doxantu ñun la dañ ci xuloo man sax naa ma di génn doxantu wala génn ci naaj bi nga doxantu man nekk nee naa la Sénégal dañu war a geste bu nekk bu ñu la defloo nañ daal li tax mooy li nga wax sa visite rek li tax loolu lan moo waral loolu doxantu bu ñu koy doxantu pour xale bi wàcc la eh. yow tolloo boo fi xale bi di wàccee nga di doxantu da di loolu dañ la reposé ne la kër ga bul jug bul mhm. toog dëkk xam ne toog mhm. kër ga bul kii mhm. tëdd nga reposé boo demee si ko sa parent topp gore bee njëkk bi naan la naan la naan la dellu doxantu cinq heures bu jotee di doxantu naaj bi nangam doxantu si naaj bi fa baax ala ko gënul gënul si bi loolu moo tax kon mu ne important parent baax na

sëy yi dafa metti ay wujju perte ko ndekki affaire yi parfois ay ay loo toggee femme da nga reposé mu ne noo maa ayee nangam. wallaay naa nga ci aw. Mhm. jox sa morom la tey yow la suba nga féetee côté boobu sa morom noppal. Mhm. ñu jàppalante si loolu tamit. organisation familiale. waaw très bien bu baax euh, naa ni ba mu mat juróom-ñetti juróom-ñetti mhm. weer ma doog lay yóbbu. waaw noonu mais euh, euh, madame Fall ñu bu ñu nee peut-être amna objectif. Hmm. wala amna ay attente yo xamné ki nga xamanteni moy patiente bi moom ngeen di bëgg ci euh, njeexital nga mu egg fa manam ban suivi. Hmm. accompagnement bi nga xamanteni yeen mom ngeen di am ak ak ak sen ak sen ki patiente yi. waaw ah, comme luñ wax rek comme nee naa consultation prénatale yu néew ñent lañ la wax. Mhm. bu ñëk bi moy manam da ngay ñëw ñu xam ndax ëmb mhm. confirmer grossesse bi. xam tam grossesse ndax mu ci yoon ndax am na grossesse yi sosu te duñ tégué ci woon. mooy yoo dafay génn yoon te yooyu parfois dañ koy opéré pour génn parce que mën a lor yaay ji boo deful écho bu njëkk mënuñu xam dana femme bi la ñuy kaas naa dama dem fi ñu laaj bi pour xam ëmb bi dëgg ndax ëmb la benn doom la ñaar la ñetti doom la ak fu mu placé wu ndax foofu place bu baax bi la tege parce que parfois aussi mën nañ ne ëmb la lu mel ni ay nen bi nga xam ne nen la mais baaxul parce que àndul ak kii pëndaxu nen la mm-hmm. daanu la tôt day dañ amata yaakaar dafa rëy bala ngay yaakaar ba dem di yëgal say jëkkër yëgal keneen ak keneen fekk nen ba baaxul nga ñëw def test waaw ñu lii da ëmbal mais ñu confirmé mooy échographie comme ndax mooy gis li nga xam ne échographie mooy gis li ci biir biir bi mhm. mu xam écho bi lii kat doom ji baax na mhm. baax na waaye fu mu place ndax place am la waaw mu ngi place am mhm. benn ñaar la wala ñetti doom la ñu xam ndax noonu si màggaay bi da ciy feeñ ñu mën a xam

dégg nga. Mhm. boo paree am naa ne résumé lay laaj ndax da sos di sos ëmb dund nga sos sa biir mu war a màgg. Mhm. dañuy seet ndax mën nañu ko woo deret. Mhm. xool ndax amoo suukar. xool ban groupe nga am ndax tey ji boo wasinee wala ñaan ñu ko yàlla nga avorté mën nga soxla deret. la groupe boo ko teel a xam day tax ñu la dimbali. dëgg la dégg nga ñu xool ndax amoo feebaru hépatite ndax loolu ñu ngi aar doom ñi ndax ku nekk boo ñu nga am dara jàng ko day dem sa doom. loolu lañ koy xal ñu xool ndax amoo drépano sama dira yu soxla xam mooy ñaar SS bi SS day sonal yaay day sonal doom wallaay loolu yëpp dañ ko xas liggéey soo toog sa place moo si rubee woon yee feebar yoo xam ne la bu la jàppee mun na def indi malformation sa doom sa doom waaw moo tax yëpp dañ koy seetu si biir xool très bien kon début grossesse bi kon CPM mais jox la ay tamit si siburu ak siburu ñëpp xam nañu bu njëkk ba avant mbas mi ñëw danaa lor doom yi jigéen wéru di ci biir lay commencement ëmb bi ba ñett yooyu mënoon naan doom yi ñu lay may pour si waru mais dañ lay digal ngay tëdd ci moustiquaire di defar sa kër mu set nawet pour yow bañ fa am. mais mhm. surtout ngay utiliser moustiquaire mhm. euh, ce que day jël en charge euh, maanaam jigéen bi nga xamante ne euh, toll na ci ci ëmb te mënul jël ëmb. loolu en fait du ma seetlu na koy jël. Mhm. naan moo koy jël. moo koy que am na garab planning utilisé. maanaam lu fekk planning kese la. mais pour xool femme bi. ni ñu koy traité. Mhm. ba mu mën a jël grossesse. Mhm. wàllu plan wàllu IST la maanaam gynéco ko faj ay feebaru jigéen la daal. Mhm. waaw comme feebaru sëy. yooyu la ñuy faj traité ak fa la ay rajo yooyu xool. yéen yan jumtukaay ngeen di utiliser. Euh, pour pour femmes yu kiiwul. waaw yu bëgg grossesse. waaw am na analyse ñu lay laaj parce que am na ay doomu jàngoro yoo xam ne mën na ko tëre ëmb maanaam infection kese mën na traité jigéen ëmb. dañu weesoo sa loolu def analyse ne du infection ñu mm. mu ne laaj rajo mm-hmm. rajo dañuy xool xool ndax maanaam fii fu war a yëpp ndax yëpp normal la am na rajo am na stéro pour xool si tamit xam naa dinañu ñëw ci sa sa si sa stéro plané parce que am na faa wàllam moom ci pla ci visite yi waaw am na wàllam parce que comme bu ku nekk ñaan nga wasin mm-hmm. te ku wasin bi ñu jigéen wér war nga noppalu am nga comme ba talu jëkkër am nga fay too doo tal jëkkër doo tal jëkkër da ngay sonn laay ko sonn war nga noppalu dañ wax yi ku nekk mhm. am na xam la ñaar du ma def plané ma ne la ba njëkk ba si mhm. kër yaa ngi noppalu ñaari at mais léegi kër yi xat nañu xat bu ne boo xam ne mhm. mënuñu la jëkkër ji mun na dem la seen kër ñaari at nga noppalu te nee suuf sax boo koy bay boo ci dindee li nga eh, kii woon ji woon dañ koy bàyyi mu noppalu nga doog ci jiwaat leneen asamaax nit waaw loolu moo xew ku wësin parce day lor lu bëri jigéen moo tax ku wërsëg nañ lay proposé wala mhm. mhm. mhm. bii de mën naa ko toog na de mi ngi nii de bëri na façon tànn su bëri neex nee naa taabal la taabal la lépp nga ci biir jaba la waaw lépp nga ci biir <laughs> waaw xam naa uh-huh. waxtaan la sëy jëkkër jabar la nga mhm. mun nu mu la ko waxee ba jëkkër ji nekkee fii day gën a yomb ba fu nekkulee boo demee nga ko man kat wax nañ ma tey visite bi plan naan pour su ma wasi ma def boo mu ne man da ànd naa ci mhm. ak nga tànn yow fekk yu xalaat nga bi nga bëgg mhm. boo wasi ne jàmm ak salaam balaa ngay génn ñu def la ko yóbbaale ko si yàpp yi la bokk. ci yàpp yi la bokk nga mën noppalu toppatoo sa doom toppatoo borom gàcce nga laama suñu charge femme xam naa ne ñu ngeen gisee suñu suñu layu bi yànj bi dinañ ko jëlal émission à part parce que li mu ëmb dafa tey ci suñu suñu émission bi mais mm. dafa bokk ci aussi ci ci ci mesure préventive yi. Mm. ndax wér-gu-yaramu jigéen ñi moo tax ñu laam laawaale ko ci. mais mm. dinañ ko jëlal émission spéciale euh, ci li nga xam ne mooy planification familiale. mais madame Fall pour ñu dugg jeexal ci CPN bi nga xam ne normal mooy euh, jigéen bi topp nga ko ba nga xamante ni yàlla dem nekk na à terme. Mm-hmm. léegi ana yan yan nan ngeen koy préparation bi ñu naan préparation à l'accouchement mm-hmm. naka ngeen koy préparer sur le plan moral sur le plan matériel. waaw boo xool suñu carnet yi début visite bi commencement ba lañu commencé yàpp. mën nañu gis carnet waaw mm-hmm. parce que bëgg nañu carnet CPN moo nekk nii. waaw moo nekk nii. léegi boo xool ci biir day am ay dessin. am na beneen bi day am pour ku jàngul am na façon yëpp. pour ku jàng ay image image ah. am na ay bind am na ay image mhm. gis nga mhm. première visite bi fii sa tur ak yëpp ci nekk mhm. turu borom kër numéro téléphone benn ñaar daje bi dañuy bëgg a bi bu amul tamit dañuy laaj ay numéro téléphone dégg nga ñu xam sa ëmb yi passé na ko dox na ko dundee mooy nekk partie bi yëpp ndax da nga wasi normal wala dañ la opéré dañ ci amoon temps sur liggéey bi def histoire ëmb yi njëkk yi daf ñuy dimbali ci ëmb bi ñu mën fagaru xam nan moo ci mën a feeñ ci dégg nga analyse fi ngay binde moo nekk nii visite bu njëkk bi booy xool. moo mhm. nekk fii visite bu njëkk bi. Mhm. dégg nga. Mhm. yii rendez-vous yi la rendez-vous ñàkk bi rendez-vous visite yi. d'accord soo ñëwee lépp dañ la koy bind saa yoo ñëw dañu bind bés bi nga visitoo. ak bés bi nga bi war a dañ lay laaj tam nga baax jigéen booy fóot. nga jàpp chaque jour bés bi nga fóot. parce que bés bu la jëlee si nga xam ne bés bee laa gëjoon fóot. bëri nañu ko dul jàpp mais dafa am importance. ndax boo weesoo sa weer ñu mën a xam. gis ngeen dessin yaa ngi nii dañ lay won pour ku jàngul dañ lay won nga xam. gën nañ paate pour ku jàng liir ku jàngul dañuy am image gis nga dañu nga war a lekk ak yi nga éviter gis nga liggéey bi mu leen doon wax moo nekk nii d'accord café beeg yooyu dañ la koy tere mhm. boo nekk jigéen parce que bi ngay naan àndul ak café ak ataaya ah, waaw da koy détruire da koy yàq très bien paan bu bën nga ci root xam nga doo root dara waaw parce boo fekkee da ngay naan fer te jël ataaya bi ataaya da jël place fer ataaya bi rek sax di yaakaar naa maa ngi naan feer waaye yaa ngi koy yàq parce que mu ngi jël luy yàq feer bi. kon man maa ngi yàq feer man it moo tax ñiy dem ba tëdd na am ñoo xam ne yow tàmm ka tàmm café. Mhm. mun ñu ko bàyyi dañu naan fekk tàmm ko ko tàmm bu tàmm. Mhm. boo ko jël par exemple bu dee nga jël café suba si feer bi koy jël guddi gi. bu ah, soro yow. ok mais ñun man carrément dañu la wax bàyyi ataaya jëm ko bàyyi sa sa da lay nga lu nekk. ndax wér la jar na ko de. jar na ko gisoo yeneen lay won mhm. li tax boo demee que grande bu gis signe de danger nga gis ngay deret dawal waaw kii yaram bi tàng dawal ñu woon la joxoñ la hôpital ngay jubali wallaay gis nga kii mu ngay crise dawal ñu la jubali hôpital mm-hmm. kii mu ngay këppa ndox ñu jubali hôpital wallaay nga manqué deret dawal jubali hôpital mm-hmm. tànk yi sadd bëri mm-hmm. na ci loolu famille seen tànk sadd dañu toog seen kër dañoo galte damaa galte mairie defal nangam parce que tànk bi ah. sadd mën naa ndax tension mu ne nekk ñàkk deret waaw te boo ñëw hôpital xam nga tension amoo appareil bu natt kër bi ñaax a deret mënoo ko natt kër gi da ngay gis ñuy leer rek ñu dem ba dafa leer léegi ëmb bee ko leer ak ko da nga manqué deret nga xëy di fat boo ñëwee fii nag dañuy xool loolu yëpp gis nañu xam mhm. yépp dañ koy xam wala nga toog xale bi yëngatuwatu loolu mu wàññi fekk xale baa ngi sonn ci biir bi signe bi loolu la mu wàññi ni mu yëngatoo loo ko mënoo ko xam moo lekk mhm. nii mhm. dégg moo tax yëpp dañ lay wax boo ko gisee joxe la nga jubale hôpital préparation bi ëmb wasin bi nga doon wax si ëmb bi mhm. dès commencement dañ la koy wax gis nga nii tëdd moustiquaire mu leen doon wax moo nekk nii soomu da nga tëdd ci moustiquaire dem visite mi ngi nii respecté say visite ba ko def benn toogaat ba mu yàgg naa awma xaalis du wax même boo amul xaalis demal hôpital du force da nga xaalis ma sama analyse bu ma dem importance bu njëkk mooy ñu visite sage gis la bëtam mhm. mu tege ci yow bu xoolee sa kanam rek nga xam ne kii malade da nga koy gis nga xam na ci ndax na nga ko gis woon démb ndax tey noonu la ñëwee ndax na ngi lekk sax mun boo ko gisee rek kanam lu bëri da ciy fii dëgg la nga waxtaan ak moom wax la man def nangam mhm. man da sama dama lekkul fan yi nga xam am na lu koy métti waxu ko mhm, mhm, parce que bëri na kii malaat yi ñëw lu lay métti ñu ne ma dara yaa ngi lekk normal yaa ngi nalaw ñu ne man de du may nalaw pour ñoom nalaw normal neex nalaw normal na donc loolu visite bee ko mën a très bien waaw dalal xel commencé dajale ay sër ndànk ndànk parce que dëkk bi métti na loo préparé wul tey mënoo xëy suba nga. nga yor ko nga dajale xaalis tuuti xam avec la yoo xam looy denc wala du butik ba looy denc foofu tax bu la bettee nga mën a jub na dencoon naa dara nga dem. Mhm. da nga soxla garab di nga soxla loo jëndal sa bopp yow li nga soxla yoo loo lekk. Mhm. loolu yëpp da nga koy waajal koy préparé. fóot ay services ay vaccin yaa xam sër loo am sëru coton. bu mhm. wax na noo ne si yaram xale nga préparé ko pour sa laytaay yi daal maanaam. yére boo mën a jënd. yére yi nga jënd yëpp lay préparé xaalis nga saabu yëpp dañ lay préparé sa kaana denc ko foo xam ne jege na. boo nee bëreet rek mën koo jël dem. denc ko waxal keneen ki la gën a jege ki nga xam ne wóor nga ko sama kaan de fii laa ko denc. waaw ki wàll ki nga ko donc boo ko wanee keneen ki la jege kooku bu la dal dalee mën a daw jël kaan bi yóbbu. Mm-hmm. donc loolu yëpp wàccaay loo xam si commencement ba lañ lay waaj di la préparé. macha defe naa ni leer na nañ CPN bi moom tey leer na nañ nañ nañ euh, waaye léegi nag madame Fall balaa ñu mooy moo moo lëmbee jamono ji muy muy Covid 19 te ñu gis euh, CPN euh, ak Covid 19 balaa ñu lay balaa ñu lay jox kàddu gi dañuy àndandoo ñu seetaan suñu interview interview bu ñu def ak professeur Marietou Thiam Coulibaly wax na ci li nga xamante ni mooy CPN ak Covid 19 ñu dellusiwaat suñu plateau. aleykum mbokk yi. man la professeur Marietou Thiam Coulibaly nekk gynécologue obstétricienne fii ci maternité hôpital régional bu Thiès man maa ñëwoon pour waxtaan tey ak sama mbokku jigéen ñi rawatina nag sama mbokku jigéen yi wérul yi wala ñi nga xam ne dañoo toll ci ëmb ak imbi tey nag waxtaan bi maa ngi bëggoon ñu waxtaan ko ci feebar bii di coronavirus nga xam ne lëmbee na àdduna bi yépp corona bi umpulewu leen ni mu ngi lor bu baax jigéen ñi ak seeni doom loolu moo tax tey ñu ñëwoon pour jox leen ay dénkaane pour moytu feebar boobu bi ci jiitu mooy toog seen kër nañu wàññi bu baax ñun jigéen ñi rawatina nag jigéen ñi nga xam ne dañoo nekk ci diggante ëmb ak imbi ñu wàññi bu baax lépp luy ay jotaay wala ay xew-xew yoo xam ne dafay dajale nit ñu bari ñaareel bi mooy ñu ngi leen di digal bu baax yéen jigéen ñi nga xam ne da ngeen a ëmb toll ci ëmb ak imbi ñu ngi leen di digal bu baax ngeen dem def vaccination bi vaccination boobu mën naa nekk ak jigéen bu toll ci ëmb wala imbi te vaccination boobu foo leen dem ci structure de santé yi mën ngeen ka fa def mu nekk ci centre de santé yi wala poste de santé yi leen gën a jege wala fii ci hôpital régional ci maternité bi bu weesoo loolu ñetteelu digle bi ñu di digle mooy ngeen bàyyi joxante ay loxo di takki ay masque ak tamit foo leen toll di utiliser lii di gel hydroalcoolique yi ñeenteeli digle bi nag mooy bu leen bàyyi mukk seen rendez-vous yi ngeen jege bu baax seen sage-femme yi ak seen gynécologue yi ba nga xam ne seen rendez-vous yooyu nga xam da ngeen ko war di respecter ngeen di ko dem heure bi nga ko wara war bi ngeen ko war a bu weesoo nag rendez-vous yooyu lépp lu ngeen yëkki seen yaram mu nekk sëqët wala mu nekk yaram bu tàng wala difficulté pour respirer ñoo ngi leen di ñaan ngeen gaaw a dem ci structure sanitaire yi pour ñu seet leen te ñu bañ a dollu ci ay feebar yoo xam ne surtout corona bi day toll foo xam ne mën na leen a faagaagal. lii daal lañ leen indiloon tey ci ay dénkaane pour ngeen éviter feebar boobu aar seen bopp aar seen doom. jërëjëf voilà euh, kon euh, ñoo ko déggandoo gis nga professeur Mareetu appel bi mu def euh, si jigéen ñi surtout si jigéen ñi nga xamante ne ñoo toll ci ëmb ak ak ak ak imbi ñuy ngi ne wax yéen yéen a ngi fii di jànkonte wax dëgg yàlla fan yi lu méttee métti métti mm-hmm. muy jigéen wéru ñi nga xamante ni wax dëgg yàlla Covid bi daf leen sonal ana yan matuwaay ngeen jël ci biir sapin bi. waaw jaar li mu dëgg la. loolu tey lu ëpp suñu bopp la. muy mbas mi. te gis gu ñu pexe lu dul naa fagoro fagoro la ñuy doxagum. fagaru pour loo xam ne di nga ko mën a éviter moytu ko moytu ko sa li nga ëmb. surtout dama wax femme gën a fragile mooy ki xam dafa ëmb. parce que nga yor ñaari bakkan. dëgg la nit boo mën a sa bakkan. mooy day gën a métti boo yoree keneen ci si sa biir. waaw donc professeur lu mu wax dëgg la dañoo seetlu léegi. Euh, jigéenu wérél yi surtout mbas mi bu ñu si ñëw da leen di gën a sonal. mbas mi boo xoolee fu niru siburu femme yi nanguwuñ ko nit ñi wax ne naa dama siburu day niru siburu mais am na jumtukaay yoo xam ne si saa si boo taxawee dañuy xool bu ma la sang analyse dama fàtte muy analyse sida bi boîte nekk nii mm-hmm. analyse sida kii bi tam même chose mooy mbas mi mm-hmm. boo amee boo ñëwee bu ñu jàppee sa loxo dañuy xam xam ndax siburu la wala léegi nga am covid bi nga am mm-hmm. boo ko amee ñu mën a teel traité bu dee teel nañ ko gis waaw mais am na ñoo xam ne bu leen dalee ñu sonn day lor sen dom parce que li tax lolu yow bo dem ba amatee loolu nooyoo ngay fat du asma dom ci biir air bu du yegg ci mom mhm. dañu sen xalé yu bëri dañuy lor ci mhm. biir yi ndax seen yaay dañu am basmi te dañ ko xam dañu am covid bi dañ ko xam mais ak basmi ni ngeen ñu wër lu dañ ne suñu ñu hôpital dañuy dañuy am basmi motax duñu duñu ñew sen kër yi mbas mi mu nga fépp mu nga marché mu nga ci kër yi. ñëw ñu hôpital mais ñu ngi dem mu ngi ci kër yi. <laughs> parce que nit yi koy yor dañuy wër. Mhm. dañuy wër ki nga wóorul sa kër sax. Mhm. ndax jigéen boo li ma fànn chaque jour boo xam du ma génn ma ne doo génn sa jëkkër day génn. day génn billaay sa doom yi xamoo fu muy yem xamoo fu muy dem. Mhm. ndegam ñun ñuy liggéey ñoo ko ñooy dim lu nekk masque yi ñu def sol ko dañuy sol masque yi. diwoo gel ba sol dañuy def dañuy raxasu. foo toll. xew dañ ko bàyyi ndax lii. dematuñu xew dematuñu dëj dëgg la li nga am nga mais li ñu la wax da nga ko war dañ euh, ko xam mooy wolof ni ñu ko waxee li ñu leen éviter lii bàyyi ko da ko war a bàyyi mm-hmm. ndax nee naa waaw du pour yow sax ndax nga ka nga jege moo xam sa maam ba nga bàyyi kër ga moo xam mm-hmm. doom ji nga ëmb mm-hmm. li ma wax sànq ci affaire tension yow li ngay yëg di nga muñ sa doom mënu ko yëg la ci biir mënu ko ko muñ donc looy éviter moytu moytul ko sa doom bi mais madame Fall est-ce que jigéenu wérul bi mën na jël léegi vaccin bi parce que question la bu ñu may posé lu bari bari bari bari bari te leerul ci bopp ci bopp nit hmm. leen di vaccin ñu commencé nañ ko démb sax démb te ñu commencé ko démb dañuy leen di fii dëgg la ñaata mënuñu ko wàññi ñi nga xam ne dañoo ëmboo seen doom mu biir bi léegi yéen ku ñëw ci visite euh, CPN yi rek mais ni nga ñëwee tey ñu la ñàkk tétanos mhm. da nga bëgg aar sa doom mhm. ñu lay jox garabu sibru nga xëy naan da mhm. jël feer noo war a jëlee vaccin bi pour aar doom da aar sa bopp mais surtout da nga aar li nga am parce que li nga am dafa am droit dund. te yaay moo ko mën a aar. Mhm. loolu lañ ci bàyyi xel. Mhm. vaccin bi wóor naa ko wóor loolu la ñuy wax mais mbas maa ngi ci te da nga koy nooyu mënoo ko. mënoo mhm. ko éviter. li nga xam bu nekk bu leen di xalaat ne kii poson da cee nekk wala leen da cee nekk ndax nit moom bu la bëggoon posone def naa lekk ñi lekk Sénégal lu mu defar bëriwul. wallaay foofu lay aw kon ñaq la ngay gëm yàlla nga ñaqu aar sa doom. ñaq bi boo ko defee. dina tax même mbas bi bu la laalee day jaar rek ok comme euh, cas aggravé yi. Mhm. ñàkk a ñàkk mu ko indi. très bien kon loolu am na solo. ban moment lañ koy def ci ci ci jigéenu wéru bi li ñuy digal jigéenu wéru bi boo weesoo si ñetti weer mun nga ñàkk. maanaam boo duggee quatrième mois. quatrième mois mu nga ñëw ñàkk. Mhm. képp ku may visite boo ñëwee dama ko wax ñu wasin tam si la ñu bokk. Mhm. ndax ki wasin même ak la am kë ki ëmb. doom ji si yow la dépendre yaa xay nàmp lépp yow yaay ji rek la xam. moo tax wasin même charte moom ku ëmb boo xoolee feer yi ngay jël douzaine si la bokk yam lépp lañ def ci ëmb. Mhm. booy wut si ne bay yegg juróom benn weer si nga bokk da nga fragile ñoo la moom ba léegi yaa ngi suñu loxo ba léegi. waaw moo tax ñaq bi. Mhm. boo wësani la. Mhm. ak ñi ëmb ñëpp. kon daal ñu wax leen ne mbokk yi ni euh, meilleure façon. pour ñu aar suñu suñu jigéen ñi. Mhm. mooy ñi nga xam ñi toll ci imbig imbig mooy ñu dem ñàkku ji. te euh, quatrième mois bi defe naa ni moo gën a wër du loo xam ne nag OMS moo ko tëral wala mhm. mais association yi nga xamante ni mooy sage femme yi nga xam ne ñoo lëkkaloo nekk ci biir Sénégal jàpp nañu à partir de du quatrième mois bu soobee yàlla soo ci ñàkkoo di nga aar sa bopp aar doom ji nga xamante ni moom nga moom moom nga ëmb ci sa ci sa mhm. biir te defe naa ni même bu yow ki nga xamante ni moom nga ëmb tamit innocent laaju woon pour juddu laaju woon pour nga jur ko war nga koo mën a sàmm ndax c'est un droit et c'est un droit ba nga xam ne légal la moom moo ko moom kon mbokk yi nañ leen daw dem kër docteur yi comme ni ñu ko madame Fall waxee comme ni ko professeur waxee tamit ñu dem aar suñu bopp ndax mbas mi mi ngi fi jógee gu fi donc kon ñëpp lay ñëpp lay lay laal bàyyiwul kenn kon na ñëpp daw euh, ci centre yi na ñëpp daw ci poste yi ñëpp poste dañuy ñàkk voilà boo ñëwee incha allah dinañ la dinañ la ñàkk kon loolu lu ñuy ñaan la askan wi lu ñuy ñaan jigéen ñi la mais lu ñuy ñaan aussi góor ñi nga xamante ni ñoom ñoo yor soxna yi ñu leen di gunge ci ci ci centre yi di leen ci hôpital yi pour ñuy mën di di mottali di defar li nga xam ne mooy seen CPN ànd ko ak ñàkk ah, nga baa ma jaay lu ñu wax tamit du ñàkk kese nga bàyyi li ñu la wax tamit te xam ne fii la nga fekk mbas mu commencé ba léegi mm-hmm. ñu bàyyi ci xel jigéen wéru amul dem xew surtout amul sa kër ga da ngay raxasu lépp loo jëndee si biir mu dugg si kër ga boo ko mënee raxas kaax saabu balaa nga utiliser surtout waaw nga moytu ku dugg si sa kër tam ndax mënoo ta dugg si dugg see na raxasu mu mooy mu mañ la mu bañ la jege ndax mën ko kër ga mënoo sol masque hmm. ku dugg si yow mu xam ne jigéen wérul nga hmm. dama ko malaat surtout nga moytu bañ leen jege loolu la ñuy wax sa loolu def sa gel di rax foog saabu saabu bu amee nga raxasu kon nag loolu defe naa moom la ñu xuus sax ci conseil pratique yi nga xam ne ngay jox jigéen ñi jigéen wérul ñi kon euh, wax nga ko hmm. benn nee nañ man bi ma ci gën a intéressé mooy toog ci kër gi bañ dem xew hmm. lu waaye di dox di dox di dox ba ëmb ba toll diggante hmm. war ngaa mën a muñ ndaxte dara yàggul wax nga ko sànq neuf mois yàggul ay ca ay beneen conseil yooyu jox suñu suñu mbokk jigéen ñi waaw loolu laa leen di wax surtout loolu rek ñu bàyyi xel si mbas mi parce que metti na topp ñu def ñu lu ñu diis la lu ñu la te comme ñun ñoo ko mënul ñu ne daf ñuy dal day dal docteur yi parce que ñoom te lu nekk la dañuy masque ko lépp la ñuy def ñu dafa sew mm-hmm. Mm-hmm. dafa sew mm-hmm. donc fu ñu nekk nañ ci bàyyi xel ñuy bàyyi xel tam lu ñu leen wax wàllu ñëw ñëw respecté seen visite yi dëgg la mbas maa ngi fi mais tamit boo tëddee kër ga ñëwoo am na loolu mën a lor parce que mbas mi ba la loree rek fekk da nga am jabet am leneen lu làqu ci yow loolu boo saytu ko na nga toog ne damaa dem hôpital dina lor ci kër ga nànk nànk dëgg la donc mbas maa ngi fi mais sa rendez-vous bu jotee demal def sa visite sa lu ñu la wax nga sol sa sa masque yor sa gel wala boo yëgee kër nga bañ la laal dara boo yëgee kër nga raxasu raxasu ba set raxasu ba set raxasu bi waaw masque moom moom bëri na femme mu fi dugg su mu ñëwee dindi masque mu ne solaata sa masque mhm. du pour sikkim mhm. da nga sa masque mhm. yam fi la yamloo bañ jaxasoog nit ñi dëgg la waaw boo ñëwee ñëw faju faju sa faju daw ñibbaat gàtt tànk loolu jigéen jigéen yu wér bi yàlla musal leen amin yàlla musal leen amin loolu la ñuy ñaan yàlla na fi yàlla jëlee mbas mi madame Fall koy sant ak koy gërëm kontaan nañ ci yow de <laughs> waaw di gërëm sama chef de service sama major ak sama moroom yi ma uh-huh. uh-huh. liggéey loolu si lépp uh-huh. ñoom ñoo tax ñu jóg yàlla ñuy sàmm dañuy def lépp lu ñu war di ñëw tam ñëw si ñoom di leen aar mhm. di waxtaan ak ñoom mhm. ñoom lu ñu am leen jaaxal mhm. nañu ñëw ku mun suñu numéro téléphone yi def ci carnet yi ku mënul ñëw na nga woote laajte moo tax ñu jox numéro téléphone ci carnet yi ku mënul ñëw na nga woote ñu jox la conseil yi war nga mun ko toog loolu daal maa ngi leen di gërëm yéen tamit yéen ñuy def déplacement ñëw fekk sañu di leen gërëm di leen ñaan yàlla télé bi ngeen nekk tam yàlla saxal ko fi amiin gox bu la nekk te lii rek la ñu am ñoo xam ne xamuñu ñàkk xam moo tax ñu xamal leen ñu xam xam fu ñu war a dem di leen sant encore jërëjëf kooku mooy Ndeye Fatou Sène ñu koy wax madame Fall nekk sage-femme fii ci hôpital Amadou Sakhir Ndiéguène ñu gën ko xam ci hôpital régional bu Thiès tey moo nekkoon que defe naa ni leeral na nañ moom mooy CPN ah, duñ leen bàyyi nag que ñi ngi ànd ci yéen ak commission ak waa conseil départemental ñoo ñuy gunge ànd kook ñi bu Thiès plus particulièrement euh, département bi nga xam ne mooy maternité euh, duñu def lu dul di sant ak gërëm ki nga xam ne mooy professeur Marette Thiam Coulibaly mais di gërëm suñu yaayu bopp euh, tata Mounina nga xamante ni ñoom suñu ay partenaire de taille lañu lépp lu ñu am euh, ñoom prestige moo leen ci doy di leen ñaanal yàlla li nga xam ne moom la ñu sumb euh, ci mbas mi jëmale ko ci jigéen ñi yàlla na ko yàlla def lépp lu ñu fi taataan mu tasaaroo ci askan wi ba ñëpp dégg ko di ko jëfee mais di gërëm aussi sama yaayu bopp ji du dugg fii du ko tudd muy bu baax Aysatu ñi famille ak infirmière yi nga xam ñoo nek ci maternité bi yépp maa ngi di gërëm mais di jël ngërëm lépp di ko teg ci tere loxo monsieur fay le directeur de l'hôpital nga xamante ni wax dëgg yàlla moom ubbil nañu buntu yi fu ñu neex la ñuy dem ci biir hôpital bi kon di ko wax ne ko jërëjëf yàlla na liggéey bi yokku mais di gërëm sama sœur madame saw moom nga xam ne moo nekk ca wàllu finance ga vraiment di wax ne hôpital régional partenaire la ak prestige yàgg na di ñaan partenariat bi yàlla na yàgg tey nag ma àndoon ak sama xarit sama doomu nday à chaque fois ñu koy wax Moussa Patni man moom laa koy woowee mm-hmm. santatul mbay Patni la sant di am moom it contentement à chaque fois di couvrir émission paj mi ndax heure bu ñu génnee rek mu ne ma jàngaat naa leneen di ko ñaanal yàlla moom it fu mu bëgg a yegg ci métier bi yàlla na ko yàlla yeggal di ñaanal waa Prestige yëpp daaw la le PDG Pape Doumbia tout monde maa ngi leen di ñaanal yàlla yal nañu yàlla may mucc ak muccule ci mbas mi di leen jox dig daje ba beneen yoon ci beneen émission ak paj mi